yow euh, salaamaaleykum Aliou Ba jaajëf euh, dafa mel ni équipe bu ñoom ay may sa ak ñoom Yacine Pouye ak ñoom magi Coulibaly ak Papa Jean dafa mel ni wala euh, ñoom madame Bala studio bi dafa mel ni dafa gën a leer <laughs> studio bi dafa mel ni dafa set huit ci gën a leer da nga fi daan ñëw fekk fi ay fii am ay poussière fii. kii a ngi koy defaraat de na seen jàmm yàgg. non travail d'équipe la. ah travail d'équipe la waaw waaw ñii dañuy commencé. ñu yeggale non palais de l'immobilier géré na. jal hmm. rangé nay filam. Hmm. moom it filam yi dafay bëri woon may sa mbay accès bi digital bi nekk ci ginnaaw donc loolu moo tax. studio bi changé Diallo Diallo rangé nay filam rek mun naa tax studio bi set. Diallo fii jaar rek. comme branchement ngénte <laughs> te xataloo ay fil fii lonk fii kër gi mooy branchement ngénte yi noonu def <laughs> internet yeeg auditeurs yi bienvenue seen journal des faits divers xalaas ak Mamadou Mamadou Ndiaye Ndiaye maa ngi lay ziar maa ngi la koy delloo Ababacar nuyu naa la bu baax a baax di seet sama waa ji paas fa mu mm, nekk mm. Euh, yaram wusu tante ko téye mais yàlla na ko yàlla may jàmm euh, may ko wér ñi ngi nuyu également waa Sénégal bu baax di rafetlu ni ñu àndee ak ak xalaas ci am na solo ñu dem ci euh, ñi nga xam ne ñoo ñuy gunge. mu di partenaires yi dañuy tàmbalee ak SIPEX société industrielle papeterie express du Sénégal yi indi ci rentrée bi lii di kay teranga kay teranga nekk ci promotion mais également képp koo xam ne parent nga bépp commune bu bëgg scolaire sa élèves yi ci sa commune képp koo xamante ni école nga bëgg a jëflante ak euh, librairie bu mag bii di librairie papeterie Mohamed wala Hello Partenaire ngir kon fourniture scolaire yu baax yu complète mais ci njëg yu yomb demal seeti waa SIPEX demal seeti waa LPM di librairie papeterie Mohamed wala ngeen woo leen ci 77 633 21 24 77 633 21 24 wala 77 571 07 02 ñu leen di jëfal bu baax a baax Vision

Louga muy Thiès muy Touba muy Mbour muy Dakar fii Kër Mbay Fall boo fa demee di nga am ay information yu gën a yaatu bu la neexee mën nga woo Optique Vision Plus Sénégal ci 33 waa Kër Serigne Touba Fall et frère ñoom leen di remercier bu baax a baax ñoom ñooy ñi indi bii di vite fait gamme la bu complète gamme la bu bëri njëriñ gamme la bu baax gamme la boo xamante ne ji la ci nekk yëpp a yomb lépp a baax gamme bi nag loo bëgg rek am na ci muy vite fait lépp kon mi ngi ci Gàmbi établissement waa kër Serigne Touba Fallé Frère nekk ci HLM marché rail bi ñi ngi ti leen mi seen Gàmbi mi ngi fépp ci réew mi 77 555 11 11 wala 77 806 15 19 ñu waxtaanee savon créole di saabu bu baax savon boo xamante ne ji bëri na ay gamme am na savon créole carotte am na savon créole miel mu di lem am na boo xam ne citron la ñu ko defaree dafa baax ci yaramu doomu aadama boo amee peau wala nga am ay picc kanam euh, utiliser savon créole savon gommant la 33 822 99 17 77 516 93 49 ñu waxtaanee également Infinix di marque téléphone bu baax bu yéeme bi nga xam ne gamme la am na Infinix Smart 7 am na Infinix. Smart 7 HD euh, ak euh, Smart 7 Plus am beneen bu ñu naan Infinix Hot 30i nekk ci promotion soixante-dix mille lañ leen koy jaay ci suñu revendeur agréé yëpp téléphone bi batterie bu baax la téléphone bi rafet na téléphone bi garanti na téléphone bi euh, mën na yàgg mémoire cent vingt-huit giga équipe bu Infinix ak gaamu téléphone yu ñu indi ku ci soxlay renseignement da nga leen di woo ci 77 881 26 96 77 881 26 96 Real Mix Premium Energy Drink mooy boisson énergisante bu naturel bi nga xamante ne ji boo cawarte boo bëggee euh, nekk forme da koy utiliser da nga koy jënd euh, boisson la boo xam ne amul taurine amul euh, spartam mooy Réel Mix Premium Energy Drink fu ne mën ngeen ko am ci réew mi ci point de vente yi nga xam ne mooy Auchan Carrefour Supeco boutique Total Energy Aiden wala fi nga xamante ne ji moom mooy Pridu wala ci boutique yu sakanal magasin yi boison buy yokk cawarte naturellement loolu mooy Réel Mix Premium Energy Drink ñu jeexale ak Malaysia Malaysia. Euh, antitranspirant anti odeur Uomo vétiver mooy déodorant pour góor am na Malaysia mooy déodorant pour jigéen am na bonbon Malaysia loolu xale yi ñoo ko tax a jóg eau de toilette pour enfant xeet gu neex qualité italienne frais mm, senteur toute la journée nga koy fekk ci Malaysia. Euh, numéro téléphone bi mooy 33 822 99 17 ba tey ci déodorant Malaysia yi boo ci bëggee euh, mën nga woote ci 77 516 93 49 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom partenaire yi may Maysa Mbaye noon lañ ko noonu lañ ko bëggee. ay euh, ci Aba ñu ñu sóobu ci xalaas yi. macha allah Ndiaye ci say partenaire mais dama cee gisul kenn kuy def affaire de lee de corps ay diw yooyu diw. Euh, am na am na ci ci ci ci euh, gàmmu vite fait bi. am na ci gàmmu vite fait bi bi da nga maa bëgg keneen. buy leeral non non. buy leeral man ma soxla kay. yow mi damay waaj a commencé waat sama émission yi à bëgg leer balaa may dem leer daal am jàppatee lan dafa bees ci yow wala da nga gis koy leeral wala <laughs> a neex mbete lu ne guleet yow xale yu góor yi de ci réew mi leeral ba ba leer nañ ne pas leeral mais pour raxas a bëgg xeesal. xale yu góor yi. mais ñi mais ñi xeesal ñëpp dañ damay. defar sama yu góor yi jënd ay saabu. waaw di ko diwoo yëpp saabu yi dañ ciy def éclairci sax dañ ko ci bind. mais boo leen nii waa booy da ngay yaa non non damay raxas. GFM <laughs> en finale euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy coupe suñu papa euh, Alaaji. Colbert Diagne donc ñun ñoo demaat final te ñun bàyyi woon nañu Aliou Ba ñaari at yoo xam ne wuñu benn tournoi euh, parce que Brandour moo taxaw ne du xel euh, tournoi bu ñu tekk ñu daal di koy jël donc ñu bàyyi leen ak ñaari at te ren ñu ngi defaat yegg nañ final te dafa bari ay blessé parce que Birane dafa blessé ma blessé Ndiaye mi bàyyi euh, terewul ñu ngi dem final final bi Saint-Louis lañ koy joué ce samedi donc euh, ñu war cee ànd ak euh, suñu supporters yeeg suñu fans yeeg groupe Futur Média gi yëpp ñu jëlati coupe bi rek te xam ni premier fépp rek premier football premier média rajo télé yëpp premier. Ndiaye wul de Ndiaye daal jubilé. Njaay <laughs> di tàng bàyyi xam naa ne benn bis du ñàkk ma naan dara <laughs> benn bis dinaa naan dara rek <laughs> toog fii wax li tax nga bàyyi. tax ma bàyyi Njaay maam ma yóbbu ko avance lii moom du ma li il faut ma def ko Ndiaye li tax nga bàyyi ci équipe bi moom il faut que na xam ko Ndiaye du neex nga noonu may lii. <laughs> Abacho événement bi topp kañ la. Euh, le 20 octobre la ci euh, musée des civilisations noires ci esplanade bi ak benn artiste international bu mag. waaw ah ñu ngi koy waajal. danaa ci ñëw bu samay rab nangoo. Hmm. ma wax la li tax ma bàyyi équipe football yi. <laughs> wala wala li tax ñu dàq ma yëpp ça dépend ku ne ni nga koy tuddee. ay xalaas bi njëkk lan lañ ci wax euh, xalaas bi njëkk démb paas mi ngi ko doon junju. ndeysaan tey bëggoon naa ñëw waaye yaram yo ko mayul mhm. euh, femme bi dafa am problème problème bi mooy dafa am benn waay bu muy sëyal mhm. ñu sëy am ak njaboot femme bi dem ba ci biir yëg ne wala gis ne ay gëstoom wan ko ne waa ji borom ñaari tur yi la maanaam mhm. góor jigéen la ci naka téléphone portable am la gis waa ji fu mu toll di yónnante message ak yooyu mu dem ba xelam tey ci femme bi sax nee na au début yaakaaroon ne dafay doxaan dafa gel hmm. nee na ma comme am na accès ci téléphone portable am nee na ma xool ko waaye abaa bi mu ko xoolee. Hmm? moo tax gis nga li may faral di wax rek téléphone portable jàmbur. portable la tudd. voilà. ki ko moom rek ko war a ku nekk na téye sa bos. Hmm, ay sama jabar la bu ma neexee xool téléphone am ak. sama jëkkër la confiance war naa loolu lépp dëgg la mais gis nga erreur fi mën a juddoo daa bari. yaay li gën a tuuti ci sëy. Mhm. xool ci portable lu jàmbur li ci gën a ndaw mooy am na gel ak am na far. waaw nga cee fekk lu yées loolu. mooy loolu la téléphone téléphone jàmbur muy bu góor di jigéen liñ ci nëbbu affaire doxaan moo ci gën a. tuuti bon li ma jàpp. wallaahi wallaahi doxaan ci gën a tuuti. moo ci gën a tuuti. Hmm. mais déglul femme bi. ki ma doon séyal maa ngi moom yàgg nañ am nañ njaboot ak waaye dama dem ba découvrir ci moom ni affaire de homosexualité moom lay def bi ma découvrir loolu ci moom nag neexootuñ neexootuñ ndax man dama ni ko carrément maa ngi dootuñu seqat dara léegi nag dem na ba mënatuta muñ lool mu daal may may sama baat mu fase ma te am nañ njaboot maa ngi nii maag sama njaboot war a sama bopp ba léegi xoolul ay doom ne meekul ba maag doom yi mu nekk lu metti daal ci man léegi nag ma naa ñëw indi ko ci xalaat ku ma ci mën a jàppale lu may pour lu may yëngatu lu may liggéey loolu laa bëgg di ñaax na sama moroomu jigéen yu bari ndax lii dafa bari léegi ci dëkk bi góor ñu bëri ñu ngi takk jabar bëggoo jabar ñu bëggoo am nañ jabar am nañuy doom te fekk na ñu ngi def leneen ci ginnaaw dafa bëri ñu ngi koy def yow jigéen ki li ngay war a soxla moom la ko góor ki di soxla wala dara loolu man mënuma koo comprendre ndax yàqal na ma sama avenir maa ngi nii toog defuma dara waaye affaire góor jigéen yi moom dafa bëri ci dëkk bi te kenn du leen ko fooge ñu ngi ci yor seeni jabar yor seeni doom kenn du leen ko fooge buñ tëddee ba guddi day wuy ay téléphone ak di wax ay message di ko nëb di envoyé ay vocal ak yooyu di ko nëb day bàyyi ba ma nelaw un jour nag ma mel ne ku nelaw di ko bàyyi xel daal muy wax a man sax pour man jigéen lay wax ma naan kii xam naa dafa am gel mais dinaa xam kan lay waxal comme boobu ko téléphone am demoon naa ba xam ko ma bàyyi ko un jour ba mu dugg ci douche bi di tàng ma jël téléphone a ak a ak yeneen ku yégee wax naa ko woo naa ko tegal ko kii ndax dama ko transféré woon sama téléphone ko yooyu tegal ko ko naan sàng ma sutura yooyu daal la ma doon wax ay erreur laak yu mel nii man xam nga ne xaw ma sax lii lu ma ci dugal te boobu ba léegi nag taxul mu bàyyi ko ndax maa ngi ndax mënoo tëb tëb rek génn ci noonu te nit ñi duñ xam nan la nag yaa ak maa ngi doon protéger xale yee ay ak yooyu daal moo tax ma gën a ma toog toog mais daal affaire yi a piir a piir après ci lañ dem ba neexootuñ man moom dama ne ko maag yow moom dootuñ seqati dara ñu dem ba neexootuñ ñu tuddante su ñëwee ñu biwaat noonu ñu ñu nekkee noonu maa moom après daal lañ mujj ma man tamit ma ne ko lii liggéey nga may ma sama baat mu bañoon dibb bi bañoon na kii ba mu yàgg après ci la nangu ndax xam na li mu doon nëbb yëpp xam naa ko naa looloo tax aussi mënatuñoo nekk daal lu doy waar situation ngi noonu nag. mais moom baa bu demee fenn moom du expliquer lan moo tax mu ñaan baat. ah bu dee am nañ doom ah, na ko suturaal de. waaw bu nañ doom na ko suturaal. la tax mu ñaan baat ndax xale yi dañuy màgg. te fii moom réew mi li fi nettali bokk na ci li fi gën a yomb. wallaahi mais li ma jaaxal mooy moo tax aba couple yi léegi kii da fii da façade la rek noo mën a nekkee ak góor mu nëbbu la boppam ngeen di sëy ba ngeen am ay njaboot. te te te te lu mel ni xamaloo ko. am na yoo xam ne sax mënees na koo nëbb. manque communication. waaw loolu ak complicité également. Ndiaye sincérité gi ñuy wax ci réew mi naan ay kii dafa sincère lii mu ngi wax ku ci nekk ci ñun da ngaa sincère sa sincère bopp. sincère ci sa arrangement li nga xam ne moom nga bëgg wax. Hmm. bëgg nit ñi dégg moom rek ngay wax mais tey ji waa bu sincère woon dina wax fem bi moom li ne ci moom yëpp. mais xam nga ne am na ci ay góor yu nekk ak seeni soxna am feebar boo xam ne dañ koy nëbbu soxna yi. la am na jigéen yuy sëy am feebar boo xam ne bëgguñu seen jëkkër xam ko. mais Ndiaye yow da ngay xëy di liggéey sa soxna du xamul ñaata ngay fayeeku et pourtant mën na ko xam ngeen ànd yow ak moom organiser wu ba mu xam lan ngay économiser lan ngay frais lan ngay financer Ndiaye sëy léegi ay sëy à moitié la de <laughs> ah, waaw wala di sëy amaat yeneen projet yoo xam ne sa soxna si ngay sëyal du ko xam. loolu c'est dangereux effectivement loolu nag li muy jur mooy bu demee ba xam ko day jàpp ne da nga ko doon nëbbatu. te bu dee yow yaay ko góor ki soxna si bu la lu ndaw lu la nëbb boo ko xamee. bal ba tàkk waaw yow ngay sëyeeg moom def ko nawle. moo mooy li wér sànq yaa ngi wax euh, final tournoi presse foot bi war a am Saint-Louis. Mhm. dañuy dem Saint-Louis. aba histoire bu compliqué ngi ndax dina fi xaj sax. Ndiaye boo yaa ngi aalul de. nee nañ ah. fexe ba xalaas yëpp dafay fexe xaj déglul kon ayca. waaw man de benn problème laa amoon ak sama benn petit frère bi nga xamante ne ñoo bokk ndey ak baay waaw daf ma jaayoon benn terrain. en 2014 2015 fële Sànnaar Pël en face université Gaston Berger Saint-Louis mu jaay a ko à mille terrain bi daka xaaj daka xaaj jaay ma 10 sur parce que terrain bi 20 sur la woon si ma fay ba matal waaw en 2016 ma commencé fondement famille bi yëpp xam na ne moom ma ko famille bi yëpp seede si laa commencé tabax ba 2020. décembre de mille vingt si la kër gi pare léegi entre temps man chantier bi presque li ma si fekkee bariwul sax parce que man benn yoon laa fekkee coulage bi yeneen si des yëpp dama koy confier rek sama petit frère laa ko njëkk confier du bokkul ak moom nag sama petit frère kooku moo ko gën a sax moom la njëkk confier chantier bi par la suite moom ñu affecté ko mu dem gaaya léegi maçon bi ka doon tabax suñu mbokk la ma tek si loxoom lépp ba mu dem ba ñu kuule ba nu kuule aussi léegi ñu dem ba benn instant parce que moom mi ma dafa tabax genn wàll gi ñoo dend maa ngi ñoo dend dafa tabax genn wàll gi jaay ma genn wàll gi léegi moom toogul woon parce que moom da dem ay Nigéria ak ay Dakar yooyu toogul woon Saint-Louis mais ba mu demee ba toog Saint-Louis nag léegi ma jël affaire yi teg ko si loxoom presque moom moo moo moo terminé chantier bi sax ma teg lépp si loxoom léegi bindalu ma nag acte de vente parce que moom ak sama grand grand parce que terrain yooyu foofu ku la jaay da rek yow yaay dem nga wuti say kayit mais comme entre frère ak yooyu acte de vente bi ñu nuy garaawal quoi heure bu ko soxloo rek daan ko defar léegi ba mu bàyyee chantier bi si loxoom ba mu demee bay dugal ndox léegi mu woo ma téléphone ni ma naa ko sama carte d'identité parce que day defar kayit kayitu kër gi waaw ñaari kër yëpp da leen defaral kayit léegi ba mu ne ma sax kayit yi pare na léegi kayit boobu sama carte d'identité ba ma ko yónnee mu def procuration mu def benn procuration bi nga xam bi nga xamante ni man maa ko wax. ne mu xëccal ma ndox sama kër mu dem sa chef de village mu defal ko attestation bu wane ne man maa ko yónni pour mu xëccal ma ndox mu dem mairie gàndong bi ñu defal ka même attestation bu wane ne kër gi sama kër la na ma xëccal ndox léegi nag kayit yooyu yëpp moom moo ko gardé woon nag kayit yooyu yëpp si loxoom la nekkoon. ba mu demee ba affaire yi pare ba kii pare ma ne ko léegi man gannaaw nekkuma fi léegi samay kayit yëpp gardé ko nga wutal ma locataire contrat bi nga def ko sa tur gannaaw man nekkuma fi da rarement la fa léegi mu def noonu def contrat bi di faye ko location dem ba si biir di lekk xaalis bi waaw léegi nag ma dindi ko si loxoom ba ma ko dindee si loxoom ma ne ko léegi location bi génne si sa loxo génne si loxo locataire bi ma ne ko léegi del fay sama petit frère bi nga xam ne moom dafa basé wu fële à Gaaya léegi bi ne ma léegi gannaaw moo ma defaraloon contrat bi léegi dama koy laaj affaire ma ne ko mu laaj ko affaire mu effectivement léegi jox leen seen xaalis waaw. ñuy dem di dem di dem ndekete moom mi ngi lal ay pexe si suuf gannaaw moom laa dénkoon kayit yëpp de dama nekk léegi dama lay jox sama kayit depuis daaw ba ren maa si kayit yooyu ndekete moom mi ngi lal ay pexe. dégg nga depuis daaw maa ngi koy topp ci kayit yi ndeke boobu mi ngi lal ay pexe xam nga pexe yi lan la. Mhm. déglu. depuis daaw ba ren maa si kayit yooyu ndekete moom mi ngi lal ay pexe léegi temps yi la rek mu créer problème locataire bi dem yóbbu ko terminal terminal yi envoyé dossier bi fële maison de justice bu nekk Pikine léegi ba nu convoqué locataire bi locataire bi ne leen kii moomul kër gi dañ ko ko rek moom laa defaloon contrat mais contrat bi jeex na bu yàgg de location bi dañ ko génnee si loxom waaw léegi ndaw si fa nekk benn femme moo fa nekk mu ne léegi nanu woo sama rakk bi nekk gars yi kii récupéré location léegi ñu woo ko kooku expliqué leen la même chose après ñu joxoon ñu man ma jóge fii Mourten laa nekk ma jóge fii dem ba foofu keroog man ak sama ñaari petit frère ak sama sœur ak locataire bi ñoo fa daje de moom moo u fa indi woon moom ñëwul keroog ndaw si dafa classé dossier bi sans suite classé dossier bi ba sax ñun ndaw si ba ñu nañu ubbi sax nanu dem waxtaan suñu biir comme que affaire famille la da yenn yi dafa ñaaw dem ak tribunal yooyu nanu waxtaan ak moom mu ko suñu kayit waaw ñu ne ñun ñu ngi koy woo téléphone parce que moom dafa tëj accès lépp kenn mënul am accès te moom ku ko woo téléphone du ko jot dem biir kër gi te parfois sax da ngay ñëw di fëgg mu bañ la ubbi wala mu ni locataire yi nekk si këram wax leen nekkuma fi ñu wax ka ndaw si ndaw si ni kon da ngeen di ubbi procédure ba sax mais sama sœur bi ak sama frère bi dem di waxtaan ak moom ba mu ne leen tant que locataire bi génnul du ma joxe kayit yi après ñoom ñu wax ma leen kii da leen chantage lii moom amu si benn droit kër gi du këram na joxe kayit yi gaa ma defal noonu rek bàyyi ko suñu loxo ba lépp ma teewal si la mais par ñu gis ñu ngi def yeneen fexe dem jëli fay benn huissier dem fayaat benn huissier ni léegi kër gi këram la nanu génn de moom kayit bu muy présenté kayit boobu mooy kayit yi nga xamante ni ñaari kër yëpp la ñaari kër yëpp la ak benn paxus bi nga xam ne da ko jëndoon après yooyu yëpp la boole yooyu yëpp la boole benn kayit. dem naa ba Sénélec ba récupérer sama abonement waaw kër gi moom ndox meeg courant bi yëpp sama tur la si def parce que moom ba mu établissement waa kër Serigne Touba Fall frère mi ñu indil Gambie di vite fait Optique Vision Plus Sénégal borom lunette partout